mu aju ci njàngalem yooyee nga xam ne nii moom la moom la daan dund ca la yaroon njabootu boppam ga ca la yaroon it murid saadix ya ko suñu borom tabaaraka wa taala booleeloon waaye nun ñiit mu xamoon ne dañu ñëw gannaawam yaakaar ko eh, topp ko itam mm, ci ndénkaan yooyu la ñu bokk kon lu mat di setantal la te mat di bàyyi xel te mat di jëfee itam ndax sëriñ bi Eh, mësta naxanteeg boroomam waaye mësuta naxanteeg bindeef fii tamit kon ñu bàyyi ci xel bu baax a baax ah, jàpp ci sëriñ bi nag li nga li li la sa njort may eh, jàpp lim bind te daan ko dund da ko gën a wér ah, rafet njort baax na lool waaye topp njort moom baaxut lay tax a rafet njort nag mooy nga def la nga war a def tey yaakaar lu baax waaye topp njort moom amul solo kon nañu gëstu waxtu nekk njàngaleem yooyu di ko jëfee euh, dégg naa ci sëriñ Cerno Mbàkke Gelawangal mu ne sëriñ Tuubaa mas naa woo maam Cerno ne ko mbooloo mi fii ñëw ñoo fi indi seen bopp te ku ne ci ñoom it wax naa la lay tax nu mën a ànd te weesuwut yett yi kat muy gëm yàlla ak ragal yàlla ak topp yàlla dal ne ku gëm yàlla da ngay nanguy dogalam ku ragal yàlla dangay bàyyi ay tereem kuy topp yàlla da ngay jëfee ndigalam loolu daana ko wax ay yooni yoon mas naa waxit ne dama bëgg a layoog bindeef yi ci pénc mi bala ñoo dem ci péncum yàlla dala ko ci tegal ne ko nag mankat li ma séq ak sama boroom def naa ko li ma seq ak bindéef yi itam def naa ko ana lu ma seq ak sama borom yett yi la muy lu mu digle def naa ko te mosuma def lu muy tere te lu mu dogal neex na ma ana li ma seq ak bindéef yi yett yi la mosuma tooñ benn mbindéef te ku ma masa tooñ ci ñoom jéggal naa la te lu ma am bokk naa ko ñoom waaye ne ci la neex di dundee na la neex defe ne boo dee dangay ngay dajeeg ahmadu ci bàmmeel loolu nax sa bopp la daana waxit ne man de sama borom dénk na ma mbalaanum sutura moom ku nekk ci àdduna di ji sàngu waaye mbalaanum bàmmeel ku ne yaa ko rabal sa bopp kon nag nañ góorgóorlu bu baax a baax a baax a baax te bàyyi xel njàngaleem yooyu yi nga xam ne nii sun njariñ rek moo ko taxoon a jóg te bàyyi Euh, sunu njortu yi ñuy topp ak sunu xel yi ñuy foyee ndax sëñ Tuubaa sunu borom tabaaraka taala suturaal na ko ba euh, mbiram réerut dafa leer nañ seet wi ci tamit weex tàll la kon nag képp ko bax koo xam ne yaa ngi bëgg dund am lënt ci mbirum sëñ Tuubaa wala nga bëgg ci ànd ak kuy dund am lënt danga bëgg topp sa bakkan te bëgg ku la ko toppale wala koo toppandool seen bakkan waaye nekku leen ci njàngaleem sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa moom ci lii rek la nekkoon ñoo ngi santaan mbokki jullit yi ak mbokki taalibe yi ci jàppale gi ñuy jàppale waa daara Hikmatul Yawmi te lépp jëm ci jàng ak jàngale ak yare ak dimbalante ci sunu biir eh, ku ci bëgg def dara wala nga bëgg cee xam dara wala nga bëgg cee doon dara wala nga bëgg leeral ci daara ji nga xam ne nii ubbi nañu ko fii ci cees te donc yi tàmbalee jàng nga woote ci 77 633 77 56 mooy numéro Hikma bi wala nga envoyé ca WhatsApp ba message incha allahu des na la tontu.